ñi nga xam ne ñoo koy topp ci site internet bi de 24 actu euh, sëñ bi ma bàyyi la nga nuyoo tur bi ak sant bi. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah Abdoulaye Diop laa tudd ñoo ngi leen di sant di leen gërëm di leen dalal comme ni ngeen ko waxee rek mu ñoo féete ci pàcc googu ñu tuddee cellule euh, hébergement ak accueil. yu fas yéene dalal gan ni képp koo xamante ne bii ñëw nga rek te bis bi tax laa jóg ñu dalal la fi nga xamante ne bii foofu rek moo yelloo ak yow ci gan gi nga ci euh, bis bi Euh, bari na nag ay département yoo xamante ne bi am na fi ñu koy woowee ay kees yoo xamante ne bi dañ ko réserver keesu soxna yi xam dañ fi ñëw incha allah rabbi pour nga gën koo leeral mu mel ni euh, fii nga xamante ni fi la nekk nii mooy salle bi nga xamante ne moom lañ tudde salle fulkul masxoon euh, ndax mën nga ñoo from fàcce li nga xam ne moom mooy salle fulkul masxoon pour ñi nga xamante ne ñu ngi koy dégg te xamuñu ko ñu xam lan mooy salle fulkul masxoon waaw waaw fii de salle bii de dañ ko tuddee salle fulkul masxoon waaye sëñ bi moom day faral di wax ni moom daaray xas yi la ñu tuddee ko euh, daaray ko ndax euh, boo xoolee ni mu ko euh, doxalee nii leen rek ko ci ñor mooy màggal xasida yi te dafay faral di wax naan képp ku fi ñëw rek mën ngaa dugg nga ziyaare ko ñaan fi sa soxla te xam ne tamit dana fi fajoo waaw kon daara ji daal daara yi fulkul masfun la mu mel ni fii boo fi ñëwee sa xel dafay dal ndax sa xel mi yëpp dafay dem fi nga xamante ne moom mooy daaray kaamil gis fi ay alquranul karim gis fi tamit aussi ay xasida la ci bëggoon li mu ci bëggoon mooy màggal xasida yi màggal alquranul karim moo tax mu mu defar bibliothèque bu toll nii duñ koy xasida ba mu fees dell li fi dem ci million ci xasida kenn mënu laa wax nu mu toll kon dañ dañuy delloo lépp ci cant rek sante ko Serigne Touba sante ko Cheikh Mouhamadou Lo mu yàgg fi loolu te waaw. macha allah am na solo euh, wax mën nañu xam tamit kuréel bi nga xamante ni moom ngeen féete euh, ci ban anam ngeen ko doxalee ak yan parti ngeen ko def pour lépp rek liggéey bi gën a mën a mucc ayib. waa alhamdulilah gannaaw bu ñu santee yàlla xanaa euh, daa doon pàcc boo xamante ni bii waxtaan ci lu jiitu bis bi di ñëw. ba euh, defoon ay hébergement yoo xamante ni bii réservé loon nañ ko gan yi comme li ma la doon jot a wax léegi rek ni soxna yi euh, beral nañ leen seen keesu bopp kees gu mucc ayib bu ñu ñëwee dinañ fa mën a dalloo durus fa seen i xasida def fa seen i abiyaat seen waxtu ñibbi jot ñu ñibbiwaat delluwaat ci seen i kër. bu ci góor ñi noonu noonu rek la la la daal di demee euh, utal nañ leen ay makkaan yu baax yoo xamante ne bii dinañ leen fa mën a dalal man leen faa bernde ba bis bi yéwén kenn ku nekk mën a delluwaat sa kër. mais ndax mën nañ xam naka ngeen ko séddalee ak nombre de personnes yi ci kuréel gu ci nekk rek ñaata lay nekk. waaw bari na ay dalluwaay nag ndax euh, toll na ci dalluwaay yi ëpp na juróom ba juróom benn dalluwaay yoo xamante ni bii euh, fexe nañ def de telle sorte que gan ñi buñ ñëwee dinañ mën a dalluwaay ay kër la. kër moom ku ne xam na ni mën naa jël ba ba ba cent personnes ndax kenn ku ne nag danañ la fexe mettre à l'aise fexe ba nga nekk foo xamante ni bii da nga fa mën a da nga fa mën a gis sa bopp da fa mën a nekk ci jàmm danga nga fa mën a am yaatuwaay ak euh, féex goo xamante ni bii da nga mën a durus xasida di nga mën a xewlu bu baax a baax. macha allah mu nekk lu am solo mais ndax euh, mën nañu xam tamit euh, ban yëg-yëg ngeen ci am rawatina 18 safar bi nga xam ne moom la ñu dënmal. waaw xanaa di santaat Serigne Touba rek te xam ni loolu yëpp moom moo ko waral bis bi sëriñ bi day wax ni li ko waral lenn képp la. mooy gàttandu bisub 18 safar bi màggal sëriñ Touba gàttandoo ko bisam bi rek moo waral mu def bis bi tuddee ko bisu xaside yi waaw màggal ci Sëñ Tuubaa màggal ci xasida yi rek moo tax mu mu kii ko kon gàttandu 18 safar gi rek mën ñoo wax ni moom moo tax mu jóg kon mën nañoo jàpp ni lépp ci biir safar gi la rek ci santaat yàlla di santaat Serigne Touba bu wér di ñaanal Cheikh Mouhamadou Lo li mu tàmbali mu àggale ko te ñu ànd ci ak moom ci barke Cheikhul Khadim. ndax ci côté liggéey bi amu ci benn jafe-jafe boo xamante ne yéen a ngi ko ciy jamono bi waaw sant nañ yàlla nag bu baax ndax euh, mën nañoo wax ni dépp bër ci dem ba léegi ñoo ngi ci liggéey bi fexe nañoo def euh, fexe nañu daal ci sunu ci sunu matadi góorlu ba nga xamante ni bii dara manqué wut wax dëgg fa yàlla dara manqué wut amaguñ benn jafe-jafe it ndax euh, gan ñi war a ñëw. ñëw nañ macha allah lu kawe suñ njort sax ndax jàppoon nañ ak euh, loolu fi xewoon noonu lu ñàkk solo loolu jàppoon nañ ni dana xaw a kii waaye lu kawee suñ njort sax moo ci am ren waaw euh, waaw xanaa di santaat yàlla rek di sant Serigne Touba di ñaanal Cheikh Mouhamadou Lo mu yàgg fi lool te wér tey wax ñi fi teew ñëpp mën nañoon rafet njort te fas seen aajo te ñu xam ni que ni bis bii bis bu sëriñ bi di sant sëriñ Touba la bis bu sëriñ bi di sant xasi day la di màggale xasi day la kon ñu santaat ci yàlla bu baax te xam neenut waa te ñu gën a farluwaat gën a sàmmante waat ak njub gën a góorlu ci ak njub comme ni ko suñ sang bi di waxee rek eh, tey di ko ñaanal mu gën fee yàgg lool ba li mu naal mu àggale ko ci barke Cheikhul Khadim macha allah jërëjëf ñu ngi koy sant baax di ko gërëm di ko jaajëfal ci leeral yu am solo yooyu rawatina kuréel gi nga xamante ni uh, fi waxee woon sànq ci ndoxteel ñu ngi fii ci salle bi nga xam ne moom la sëriñ bi uh, tuddee fulkul mashoon nga xam ne ba ci uh, nga xam moom la sëriñ Modou Lo di mbokki jërë ngeen jëf jërë ngeen a ngi ñuy toppandi ci site internet bi di 24 actu xam ne Serigne Modou Lo moom euh, euh, juróom-ñaari fan ci weeru safar waaye tamit 25 ci mois de septembre euh, ki ñi nga xam ne moom la janool ci suñu jotaay di Serigne Mor Touré bokk ñi nga xamante mën nañ ne moom moo jiite lépp loo xam ne jëm ci ndongo yi nga xamante mooy ndongo yi Serigne Modou waaye tam mu féete fa la ci diwaanu Dakar laataan ñuy dugg ci yaatal gi ak leeral gi bàyyi siñ Mor mu nuyoo ak ñi nga xam ne ñoo koy topp ci site internet bi di 24 actu yi sëñ Mor maa ngi lay nuyu. waaw asalaamaaleykum euh, ñu ngi nuyu ñëpp di leen bu baax a baax di euh, yëpp di leen nuyu soxna baax macha allah sëñ Mor ci nuyoo bu am solo boobu mu mel ni yow yaay jëwriñ ndongo yi nga xam ne ñoom ñoo féetee euh, fële ca diwaanu Ndakaaru di taalibe yi nga xam ne ñoom ñooy sëñ bi ndax mën nañ xam taxawaay bi nga xam bi nga xam ne amee nga ko ci diwaan boobu nga xam ne fi nga féetee muy diwaanu Ndakaaru waaw ginnaaw ba leen ziar bu baax a baax leen ñaanal yokkute ak tawfeex di seeyal suñu yaakaar àdduna ak alaaxira muy sëñ Modou muy amal bis bi fii ci Ngaabu 27e édition bi comme ni nga ko waxee sànq rek di dëppoog juróom-ñaari fan ci weeru safar waaw foofu dañ ko dañ fa nekk sëñ bi joxuñu ndigal joxuñu ñu jiite daay mooy bu naafe ànd ko mbokki taali bi nekk sow ak yi nekk bitim réew yëpp rek ak foo leen bitim réew fépp taali bi nekk ñu ànd koog moom sëñ bi féetal na ci lu bàyyi ñu koy taxaw ci bis bi mboolem taali bi yëpp rek ñu jiite leen ànd ak mbokki taali bi ñu ko àndal waaw suñ boom def na tawfeex na ba lépp jàpp ne na ci kàttanu sëriñ ba ak mbaaxam bañ excité ci jëmmi bis bi waaw mën nañ daa fi ne lépp yéwén na incha allah waaw. xam tamit euh, liggéey bi côté boobu fan euh, naka nga ko organisé yow mi nga xam ne yaa leen jiite. waaw loolu daanaka comme ni ko sëriñ bi waxee bu ñu jiitelee ci liggéey bi ñu ànd ko mbokki taalibe rek daanaka daa am noom dañ koy dañ koy waaj depuis daaw benn ñu ngi koy waaj bañ génnee ci bis bi daaw benn ñu ngi koy waaj ngi waaj ko ba agsi ci tey suñu boom dogal mu jàpp ne tey ak waa bitim réew ñëpp rek suñu boom dogal na dimanche ji lay weesu ji di jiitu bis bi ci lañ jébale liggéey bi waaw mu doon lu takk loo xam ni gars yi dem wax dëgg yàlla jamono xëy na am na mu toll waaye boo xoolee wen sax bañ naan daaw ba jamono xaw a am nu mu demee la wen sax a taxaw bokk la gars yi gën a ànd ak passif ak dogu la gën a gën a jàppandi bu baax a baax ci donga yi wax dëgg yàlla jamono kii ne waaye gars yi wax dëgg yàlla nañu passif boo xam ne moom daanaka dañoo dañu jële kaw sax wax dëgg yàlla waaw lépp jàmm mel ni tamit bu ñu duggee ci wàllu communication bi naka ngeen ko euh, doxalee ci li nga xamante ne mooy depuis nga xamante ne sëñ bi jàpp na date bi ci bisu xasida bi ak euh, biñ ci accès ba léegi waaw bu dee foofu nag daanaka bu dee fii ku mel ni ñoom Abdou Mbaye mbay sëñ Moustapha Ndiaye ak ñooñu ñooy communication fii bu dee fu mel ni Ndakaaru nag ku mel ni Abdou Khadim mooy kaddu daawa ji Abdou ak euh, ku mel Ibrahima gi sëñ moom la féetaloon muy jëm ci wàllu daaya yooyu moom muy déplacé di leen ko yëgal waaw lu bari yaatal nañ ko daal ci bis bi ku mel Ibrahima Gueye ak sëñ euh, Abdou Khadim Mbaye ak ñi ko àndal yaatal nañ ko baax a baax ci wàllu woowu wàllu euh, ban yéeg nga am ginnaaw bi nga xamante ne déplacé woo nga fële ca Dakar ñëw te lépp rek dara waralu ko dul suñu xasida bi nga xam ne moom la ñuy amal waaw moom de dafa mel ni sëñ bi ak nam ci soññee ak nam ci nam ñun daanaka bu jubsee fekk jàll daanaka du am jàmm ndax sëñ bis bi ne ñoo ko ñoo goo xam ne wax dëgg yàlla saa ndax day bis bu mu fonk boo xam ni mën nañu sax maanaam da ko fonk fonkaay yoo xam ne gis amul lenn lu yam lu yam lu yam ne mu ko fonkee waaw ndax saa su ne bu ci waxtaan ak yow da nga yëg sax maanaam ni mu lay soññee ci bis bi ak ni yow nga xam ne ñoo na ko lool moo tax yëg-yëg bi ñu moo xam ne wax yàlla mënuñu ko mënuñu koo takk daal ndax mbégte mu yaatu la moo xam ni mu ne su ko takk ndax bis bi day lu sëñ bi fonk loo xam ne boo xam ni waaw day day da nga faral di wax sax euh, bëgguma daal kenn bis bu weesu kenn ñëw naa ma damaa amoon gànt nanga wala nangam maam bis bi jël bi accès daal na ko ne na baam ñëpp teewee ko ndax la ci ne ci taw fi ak xéewal daal bëgg na maam ñëpp ñëpp jaayuñ ci bëgg na daa bëgg jaayuñ ñëpp jaayuñ moo tax daa bëgg ñëpp di ko teewee incha allah pour jeexal yéen kàddu ak ñi nga euh, a rek leen sant gis nañ taxawaay bu baax a baax leen jotali kàddu sëriñ bi ndax wax dëgg yàlla bi ñu ko jébalee liggéey bi am na kàddu yi solo ñu bi tey kàddu yi sant waaw bëgg na lool ci liggéey bi xanaa di leen ñaanal tawfeex rek ñu yàgg koo fekke yàgg koo ko fekke ànd ko suñu waa ji su yaakaar àdduna ak alaaxira ñoom it yàgg yàgg koo man ñu yàgg koo ak ñoom te ñaan lépp tawfeex te yokk rek ñaan li ci sa li liñ ciy dàkk ci bis bi sëñ bi defal ñu dakaw suñu jot ak mboolem taalib yëpp ak képp ku fi teew ak mboolem jurit rek suñu boo defal ak tawfeex waaw di leen ziar yéen itam bu baax a waat leen ñaanal yokkute ba seen sit bi àgg foo xam ne day day day féete kaw lépp daal barke borom Tuuba ak barke jëmb bis bi waaw Euh, macha allah ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm di ko jaajëfal Serigne Mor Touré euh, di bokk ci ñi nga xamante ni moom moo jiite ndongay euh, Serigne Modou Lo yi féetee fële ci diwaanu Dakaaru comme ni mu ko leeralee sànq rek dégg ko lépp rek ngir bëgg bis bi nga xamante ne mooy bis bi li Serigne Modou di amal fii ci Ngabou doon bis boo xam ne bis bu yemm la waaye tam doon bis bi nga xamante ni bis bu mucc ayib la di comme ni ñu leen ko diggee woon rek topp nañ ñu léegi nga xam ne moom la ñuy amal fii ci Ngabou jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh ñu ngi di nuyu kenn ku ne ci turam ak santam man Djigo Kébé laa tudd taalibe sëñ Moussa Nawel moom sëñ saa moom sëñ Basiiru sëñ Modou nag de kenn ci ñun ngir ki nga xam ne moo nu soxal ñor nu di sëñ Tuubaa dana koo gis ci moom doyloo ko ci moom gisu doxinu ci moom itam ba tax nu topp ko ci moom lii nag mooy sabab moom sunu ñëw fii ci bis bi tey di ko santale sëñ Tuubaa ci bisam bii di ko ñaanale ak yàgg fi loolu te wér ba li mu naal ci Serigne Touba mu matal ko ndax moom day dara ñu ne ko dul Serigne Touba ndax fii nu toog ku fi xool xam ne kii sëriñ Touba rek la ndax saal bii nu nekk ku fi nekk ku fi ñëw te xool saal bii te xam ne fu dul fii fii lii amu fa fii dong la am te fii da ko fi indi mooy jëmm ji nga xam ne moom ngeen di gis fu ne mu wër mooy jëm ji nga xam ne mooy sabab tey bisub tey bii di ko ñaanal nag mu yàgg fi te wér ah yàgg ci ginnaawam te li mu naan lépp yàlla matal ko ci barke maamam ju tedd ci loolee Cheikh Ahmad Bamba mi nga xam moo ko ñor ayyasamin lillahi naji wali iblisa is na dayto bi ya wali